sant naa leen baax. li ñu topp rek mooy ay élection la ñu jëm ñu ngi woowaat ndaw ñi di woo mag ñi ci unité ñu àndandoo di xàccandoo di dóorandoo fexe ba le 25 février que mooy permanence permanence ñëpp la képp koo ne dañ na amul ba ngay jàppale. ba bind nañu suñuy bunt lépp loo xam ne bëgg nga ko def muy góor muy jigéen muy mag ay ndaw boo ñëwee dina def ko bind loo bëgg a def nga def ko parce que lenn rek moo itteel ba yàlla mooy ndamal coalition benn bokk yaakaar ci élection yi ñu jëm élection présidentielle bi ñu ngi sant bu baax a baax di leen gërëm. di jaajëfal suñu jigéen ñi tey di leen wax secret Baye Alla lan la lan moo waral mu mën a mobiliser lu toll nii Baye Alla day jëriñ askan bi di jëriñ social di def si ñoom loolu mooy secret moo tax fu mu wootee kenn du fa xaj kon jaajëfal baay àlla ñun bare ñun jigéen ñi pour accompagner la pour la continuité avec le président Amadou Ba incha allah le soir du 24 25 février ñu élire ko au premier tour loolu ñu ngi jaajëfal ñëpp di sant ñëpp merci beaucoup. loolu mu doon réclamé le numéro 10 te xam ngeen numéro solo ci équipe. numéro 10 boobu moom tey bu ko kenn xoolati nañ ko bàyyi Baye Alla lii mu def nag yàgg na koo def ñu koy sant di ko ci gërëm ndax politique nii la politique la ci ku ñëw fii tey danga kontaan da nga xam ne baliseel na yoon wi nag baliseel na yoon wi le notre candidat le candidat le candidat le plus valable mooy le candidat Amadou Ba candidat bi nga ne suñu mentor mooy le président Macky Sall te sumi kaayam nekk fii ci Touba moom la ñu toxoñ tànnal ñu ko pour mu liggéey bi nga xam ne président def na ko ci réew mi ci durant fukki at ak ñaar yii fii ci Touba nag lim fi def ku ko doon lim tey ba suba doo àggale ila Touba bi hôpital de niveau 3 bi muy hôpital Cheikhoul Khadim tali yi ci dëkk bi assainissement bi ay milliards yu bëree bëree bari président def ko fi ci bourse de sécurité familiale yi jàppale suñ jigéen ñi ak suñ xale yi donc defe naa loolu aussi lu bare bare la ci président def ci dëkk bi na nag xëyu ndaw ñi aussi maa ngi nuyu ndaw yi yëpp ñu ngi nii ku lim da ngay juum waaye ñoom ñëpp ñu ngi nii vraiment ak ndaw yi nga xam ne ak jigéen ñi nga xam ne ñoo ànd ak Baye Alla ñoom ñëpp jox naa leen seen wàccuwaay di leen di leen gërëm ci turu coordinateur des jeunes des zones des seize kon loolu la ñun ñëpp nañu àndandoo joxante loxo euh, liggéey organiser élection yi au soir du 25 février ñu yëkkati suñu loxo ne vive le candidat Amadou Ba vive la coalition Benno Bokk Yakaar vive la circonscription électorale de Touba maa di sant di leen gërëm salaamaaleykum wa rahmatulahi ngi nga xamante ne ñoom ñoo fi teew ñëw dalukaay bi yàlla na la yàlla defal tawféex kàddu yi wartu gudd ndax honorable Matar Diop foog naa moom mi nga xamante ne bu ko ñëpp dégloo li bëgg yóbbaale dinañ ko yóbbaale moo tax dañu nañu saafonte ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo fi ne ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci ne ci turam ak sa di leen daal fàttali ne na ngeen doolee góorgóorlu ci li nga xamante ne moom mooy waaj a xew le 25 février ñu ngi ci ñaan yàlla mu may ñu ci ndam ci barke Seydina Mohamed jërë ngeen jëf. Baye Alla Sylla référence la ci wàllu engagement ci wàllu détermination ci wàllu loyauté. ci wàllu warante li ñu waroon a def taxawaay boobu tey moom la am moo tax tey képp ku nekk militant ci Sénégal rawatina ci Bamba Mbacké boo xool li muy def tey war ngaa jël moom exemple loo doon def benn nga def ko fukk parce que nag lii muy def moo naa ay doomam ñu defal waaye alalam fekkewu ko dooleem fekkewu ko temps fekkewu ko xalaatam ak dara fekkewu ngir rek président Macky Sall bi ñu joxoñ muy Amadou Ba am ndam fii département de Mbacké loolu nag ci lay woo tous les responsables du département parce que nag l'histoire nous a donné raison tey ñooy premier département bu ëpp ay électeurs ci Sénégal kon ku bëgg a faru force nga jaar Touba wala département de Mbacké te bu ñu département bi Touba moo may woo ñëpp lii ma ma fii tey dal na sama xel mën nañoo renverser la tendance bu ñu wóoloo nekk benn animé parti bi dëggal suñu bopp bàyyi ñu xiiroo beeg ŋaayoo bi ku xewle gi morom ñu fees base bi animé parti bi parce que nag ki ñu àndal bilan bi mu fi def war ñu rus di ko wane li mu fi def ci bilan ci Touba ci département bi dafa fees dell dafa mat a sëkk ba tax na buñ ci sukkandikoo teg fii candidat bi nga xamante ni meilleur profil tey moo ko amee ci wàllu parcours académique ci wàllu parcours étatique nañu tey amul benn candidat bu mën a taxaw ne candidat amul ba diw moo gën profil amul comme candidat bu mel noonu ci la ko jox am bilan bi mu am ay la yéen bu ñu góorgóorloo défendre bilan bi taxawu suñu candidat fay ngor ak jom président Macky Sall war nañoo mën a département de Mbacké fii ci département bi li def en dehors Dakar dafa ko beneen département ci Sénégal ñun ñi ne ci àll bi xam ngeen ne yàgg nañoo jooy PUDC waaye fi may wax ak yow commune yi ci àll yëpp ku ci nekk ñaar ba ñetti dëkk jàpp ñeenti dëkk fi may wax ak ñu nga yokk courant bi ku ko def te loolu président Macky Sall la nit ki nag bu ne fii ak 2025 dinaa ah, courant bi dina doy ndox bi dina doy te waree ni mu wane ay liggéey war nañoo mën a base yi ñu woon gëm ko fexe ba suñu candidat le candidat Amadou Ba le meilleur profil de tous les candidats ñu mën ko jàppale taxawu ko ba incha allah au soir du 25 février le département de Mbacké renverse la tendance en donnant une majorité écrasante à notre candidat le candidat Amadou Ba. donc kaddu yi laa bëggoon a yëngati dañoo tardé mais encore une fois mbooloo mooy doole nañu bàyyi xiiroo beeg kenn rek moo bëgg tey muy Amadou Ba fa la ñu député fa kenn nañu fal mooy président te ñu ba ñu ñëpp bu faloo di ci des mën koo lijjanti mais instant bi benn bëgg-bëgg mooy ànd ak si Bayal si la ànd ak honorable Matar Diop ànd ak le ministre Garoba ànd ak tous les responsables et les militants ñu fal Amadou Ba dès le premier tour incha allah au soir du 25 février jërë ngeen jëf. fii nag yaakaar naa ne lu ñu am na solo. daw mu ne ma bàyyi ndax golo bàyyi daw mu ne wax leen ci seen tur maa ngi nuyu également Basirou Gueye Basirou Gueye nekk fi allié maa koy nuyu nuyu la COJER nuyu la jeunesse bàyyi àll gàcce nga naa ma si la waaye yàlla yaakaar naa taxaw nga fii taxawaay boo xam ne taxawaay bu am solo ndaxte lii caaxaan defu ko lii tappale defu ko lii jàmbaar dëgg moo ko mën a def kon nag gàcce ngaalaama bàyyi àlla si la bu fekkoon loo am lekk ko wala loo am sa poos bi bu soobee yàlla boo woowee ñi ñëw waaye bis bi ku ci ñëwul ku ci ñëwul wax dëgg yàlla liggéeyaloo parti bi man ma tàggeew maa ko wax képp kuy liggéeyal parti bi nga teew fii ci bisu Baye Alla Sylla bi ndaxte am am kenn amul jot waaye lu mel nii Baye Alla jël ko mu nekk permanence bu mel nii mu defal ko parti bi woote mu day nii ku ñëwul da ngaa nekk ci lu nga nekk ci kenn xamul kon buñ bëggee am dañuy waxante dëgg bàyyi ko bàyyi raayante bi baa la yaa ngi ñàkk sa alal yaa ngi ñàkk sa temps ànd ak say mbokk def lii bi lii nag li koy wane mooy le candidat Amadou Ba na ñëpp jàpp le 25 février ñu fal suñu candidat Amadou Ba au premier tour ginnaaw bi ñu ko le président Macky Sall ci mu am solo soxna yaay puy gàcce li ma la maa ngi sa taxawaay yaa ngi doxal yaa ngi doxal nañ bàyyi critique yi critique yi amul njariñ ak honorable ACCT madame Sall maa ngi lay nuyu. soxna yaay Pouy ñun coordination zone yi nag bëgg nañ bu soobee yàlla ñëw ziar sëñ Abdou Karim ndaxte parti bi parti bi nag parti bi coordination des zones ñoom ñooy kilifa yi ñoom ñooy kilifa yi yéen da ñëw en apport jël seen alal di ko ci def kon boog li def ñun ngeen koy defal danañ leen yaatal danañ leen dee tuum Moustapha Seye moom moo jiitu ca boppam ak gone yi mu àndal ak waa Madiana kon ku daal tuum maa ngi sant ñëpp gërëm gërëm ñëpp sama xol na nag wax ji mën bari ñi fi teew daal bàyyi ndax maa lim daal bu maa lim maa ngi leen sant di leen gërëm di leen xamal ne lii lañu bëgg anniversaire bi ndax gone yi fi teew bari na dañoo bëgg a tàllal suñu loxo ñun ñëpp boo bëggee nit ñi dëkk bi ñu nii ñun daal li ñu gëm bëgg ko mooy li ñu dugg am joxante loxo ba mën a gañe li ñuy def ñi fi teew ngeen xëy dañoo nekkoon yeneen parti ñu ngi leen gis ñi nga xam ne ñoo dëggal benn bokk yàlla allié yi ñu ngi leen nuyu waaye bu ñu daal du leen juum sant naa moom tamit sant sant nañ leen li des nag xam naa ne na demee demee damay bàyyi ak commencé ñu laaj ñu ñu soxlaa xam seen i woote ni bu ñu woote kenn bu ñu woo kenn bàyyi kenn dañuy woo ñëpp maasal jëm ndax gis nañ xajoo ba moo tax dañuy dooleel suñu loxo ñëpp ñi nekkoon feneen ak ñi nga xam ne dañ cee nekkoon ci wàllu jaaree ji te wane ne suñu seen bopp ñi nga xam ne dañoo nekk feneen nekk ñu soo nekk ñu gën dañuy ànd ak àll ñëpp suñu loxo parce que ne daal liggéey liggéey boo xam ne dana ko bind boobu ni liñ bind bu ca yeggee rek mën a am loolu la jublu si woote bi tey ku ñu woote kenn keneen ku nekk kenn te gisoo sa bopp ñu ngi lay taalal loxo di leen liggéey parce que yéene am na boo ko gisee xam ne ñoo ngi ndax permanence tonn yi ñu ko ci 4 millions 2 mois mooy am yenn liggéey ndax mooy li daw xajuwuñu ci kenn boo déglu ci kenn ñëpp bu nga xam ne am na événement boo ñëwee danañ la ko jox bu fekkee suñu événement la muy fas wala amatu fa bu ko def di ko ñëw boo ñëwee nii sa kër la dañ la koy dalal bu ñu mën a loolu mooy préparation yi bu ñu ci dellu gannaaw bu laajee dimbali dañ lay woo dimbali la xawaat la ñu la ko mën da ngeen dëppoo ñu ngi leen sant di sant jaxanteew ñëpp am nañ fi nag ñu nga xam ne mbay mi moom boo xamee tudd ba nga jógee ba tàyyi ñëw ngir bokkal ñun daje mi def na ci lim bi war a ñu ngi sant ñëpp di leen gërëm jërëjëf